waaw ñu ngi leen di fay di kontaan bu baax. tey boo ñoo expliqué lu waral tey fii sa teewaay lu muy doon. no sama teewaay moom wax dëgg fa yàlla mënu ma ko expliqué parce que bu la neexee ñu ne bés duñ ci loolu mais caaya lañ ci. waaw parce que ñaar ñëpp dañoo nekk ay suñuy nit ñu seexu milieu bi seexu lu rafet muy fatel muy ngaaka dañuy dem leen teeg ñoom di ñëw leen teeg ñoom dañuy xew xewle ñu ñëw ñoom tamit ñuy xewle ñun tamit ñu ki ñëw bés bi lu ñu def lu dul kontaan ci te di leen ñaanal yàlla musal leen ci seytaane jubóole leen may leen ci njaboot gu barkeel. yow xaytu ngaax nga xaytu fàttel nga euh, tey jii boo amoon yenn kàddu yoo xam ne wala ay conseils yoo xam ne moom ngeen di jox li muy doon. waaw aw ma conseil bu ma leen jox ah, parce que ñoom ñu ngi ci mu ngi nice. parce que yow célibataire nga. waaw lool nga yaakaar rek sa yaakaar rek ngay waxee <laughs> waaw. Ah, man ah xam nga sox nga <laughs> takk suuf. <laughs> waaw voilà yéen yaa ma gën a xam daal man ma lu ma leen di conseillé di leen wax rek ñoom comme niñ ko defee ba fii nii rek waaw suturaalante seen biir bëggante jàppante voilà te yàlla rek tax lool rek a ci am solo parce que mariage moom a long terme à long terme la quoi yaa ma gën a xam yàlla na leen yàlla jàppale yàlla musal leen ci seytaane yàlla gën leen a jubóole ñu bañ a lu kenn waaw. tey ba ma yenn kàddu seede yoo xam ne moom ngay def si Fatel wala si Ngaka Blindé lu muy doon parce que temps yi gis nañ nga publier ci sa Instagram nga ne léegi maintenant yaa ngi GFM IGFM lan lay mën a xaar fu tos ak ak ak lii di TFM wala mun nañ wax groupe bi yëpp muy IGFM. waaw waaw waaw ay ay ay xéwal rek parce que ñoom bu ñu la gisee ba wóor la wóor la nga ñëw signé seen jiw rek saa bu nekk am na lu bari bari bari lu ñu si yow lu ñu gis si yow nag moom lay jéem a fexe ñu tuddee ko nga xam ne tamit Sénégal yi ñu faa liggéey rek lañu ko yóbbu dañuy def pour def pour ñu ko fay. mais Sénégal yi bëri na ni Abba ak Tos foofu ndaw du neex mais est-ce que ñu am beneen contenance abaa moom positif wala wala wala abaa moom c'est-à-dire bu positif lay doon abaa moom fekk ko saabu tuuti abaa moom loolu loolu amul sax xalaat parce que ñun abaa ñu am ci milieu bi yàlla ak moom la nit ku nekk yàlla day am koo xamante ne tey am na awale ko ci moom abaa yàlla def du man jël ko ñu gis suñu Sénégal yi yàlla jël seen wërsëg jaaral ko abaa mu nekk nit ku nekk ñàkk ci ñaan waaw nit ku ñàkk ñaan bu gisee lii nii war na cee mën a dugg war cee percé def ñu dof wax xaalis boo xam ne peut être ñu bëri jàpp ne euh, fay ñu doon euh, maanaam xaalis bu bëggoon rek moom moom faaw moo tax nga dem GFM euh, bàyyi leen seen seen non man li ngay wax ni de wax dëgg fa yàlla maa ngi doog a jóg mais seen web mosu maa yore dara mais seen web mosu ñoo yore kenn dara maanaam ñoom wax dëgg fa yàlla contrat lañ si contrat si France ma contrat boo xam ne def nañ seen liggéey nag moo mel noonu liggéey nga gis ñu fi football baax na bari soxla bu ñu fi football noonu man a ñëw jàmm ak nuyu waa bu baax ku mel ni Ahmed Ndoye Abdou Salam sa patron bu ñaaw ko yàlla jàmm ak salaam ay nit ñu baax a baax a baax